ñu jubali hôpital Ndaamaatu bu Touba ñoom it ñu fas yéene leen jébbal sachet yi nga xam ne dañ ko waajal mu nekk lim bu takk lool ñu fas yéene leen koo jébbal ci biir weeru koor gi. mu nekk ay sachet yoo xam ne lépp lu jullit bi war a yittewoo ci ndogu def nañ ko ci moo xam tàndarma la sandwich boisson ndox ak yeneen xeetu sucré bi ñu agsee kilifa yi nga xam ne ñoom la fondation bi yebaloon jébbal nañu liggéey bi ñi nga xam ne ñoom ñooy kilifay l'hôpital bi jaarale ko ci ñi nga xam ne ñoo fa teewaloon directeur bi di docteur Sourang aouzu billahi mina seytaan rajim bismillahi rahmaani rahim xabli safinatan bi kullil janna min daarati min nan yaasal min na ataaniyal markabu fii daari min nan inda tasin taduxu la ni daari min nan ginnaaw bi ñu sant yàlla jullit yenente bi sant Serigne Touba di ñaanal Cheikh Mouhamadou Mountakha mu yàgg fi loolu te ànd ak wér naal yi mu naalal lislaam naalal ko suñu taamu àggale ko ak sagoom Cheikh Mountakha ku jar a ñaanal la Cheikh Mountakha ku jar a jàppale la ci ñaanal sëñ Muntaxa la bokk waaye ci jàppale sëñ Muntaxa la bokk ndax fondation bii ngeen gis ci fondation Soxna Bali Mbàkke bu ñu nee Soxna Bali nag Soxna Bali bintu Sëriñ Soyibu waaye Bali Muntaxa dina garaat la mooy daal liggéey ba ñu ne ko Soxna Bali taxaa loolu ngërëm a tax su ma nee nag jàppale mun Muntaxa la ci liggéey bi mooy sëñ Muntaxa mooy fekk xeex boo xam ne yoonam nekku ci xeex boo xam ne laaliwu ci benn yoon waaye xam ne moo yilif Sénégal ñu ne ko le père de la nation day day jël ña xeex jubóole leen jël alalam def ci ba noppi fexe ba ñëpp am jàmm kon lu mel noonu tànk yooyu rek la soxna Baali Muntaxa mi roy ba tax mu sos fondation bii di fondation soxna Baali Muntaxa fondation bi dara taxu koo jóg lu dul orphelins et pauvres trouvent en elle refuge xénophobie bannie de son dictionnaire noblesse innée dans l'acte et le mooy jàppale néew di doole yi jàppale orphelins yi ak jàppale ñi nga xam ni ndimbal yàlla na mu àgg ci ñoom li tax mu tàmbalee fii nag mooy hôpital Ndaamaatu ku ne xam ne day boo xam ni day hôpital mag te benn hôpital jiitu ko fi ci ay taxawaay ak ci liggéey kuréel gii ne fi nag tuddee seen bopp day dem am Jaara ci hôpital Ndaamaatu te soxna Bali benn yëg-yëg la am benn bëgg-bëgg la am muy liggéeyal la soxna jaara kon lu muy def njëkkee ko ci ëttub soxna jaara kon liggéey bi ñun suñu xel gën na cee dal te gën na cee rafet njort moo tax barget yi mu indi ko lépp loo xam ne nit ku woor ba ngoon aajoo woon na ko rek lenn lu ci ne jël nañ ci boole ko ci def ko ci sase yi nga xam ne kenn ku ne buñ la joxee sa sase la ngay yelloo ci ndox lépp da tey ne yool bi mu ci am nag mi ngi ñaan yàlla def jàmm ci réew mi te sotti sutura def fi barke ñaanal Seex mun Muntaxa am yàgg fi loolu te ànd ak wér ndax jullit bu woor ba ngoon nga yëkkati doomu ma jox ko rek képp ku def loolu ku ne ni sa këru àjjana taxaw na loolu nag du samay wax waaye yonent bi moo ko wax moo waral nag taxawaay bi dana gën a yaatu fondation daal dara taxu koo jóg lu dul di doole ak jàppale leen képp koo xam sa loxo jotul sa ginnaaw fondation bi kem lam man ci jàppale la mu def ko xalangu nag dajul suuf waaye képp lay kàttanam fes na ko tey yéen a def kon nag ñuy sàkku ci yéen it ngeen ñaanal la soxna Bali yàlla kàttanal ko dolli ko xéewal ànd nañoo Serigne Jili Mbàkke mii ànd ak Serigne Morlo Serigne Youssou Yadd ak xale yi nga xam ne ñëpp ñooy fondation soxna Bali Muntaxa ak soxna maam Marème Ndiaye mi nga xam ni moo soxna suñoo bokk lépp mu jaay lépp jëndee ko taalibe ak soxna maam Marème Mbàkke moom Serigne Muntaxa moom Serigne Bassirou moom it ñëw na ak soxna Ami Xumma ak waa fondation bi yëpp ndax soxna Bali nag day faral di wax ni sama jëf daal bu demee bëgguma ay kaddu di ci di ci tege nag bu caméra tàkkee ñun la waxal ne faw faw nga wax te tubaab daan ne considérer pas une personne a dit mais ñoo ngi sant ñëpp. daayira Maam Jaara bi nga xam ne moo nekk ci hôpital bu Ndaamaatu ñoom ñëpp ànd nañu doon benn gàttandu fondation Soxna Baali Muntaxa waaye rafetluwaat bu baax a baax jëf ji nga xam ne Soxna Baali Muntaxa mësta dañ di ko jëf ci hôpital bi loolee jiitu sosuk fondation bi. Euh, soxna Awa Fall la présidente daayira Maam Jaara fii ci hôpital Ndamatou euh, ñu ngi ko ànd ak soxna daayira bi yëpp ak soxna amicale yi amicale hôpital Ndamatou te présidente bi toog ne muy euh, madame Ndiaye Anta Cissé ñu ànd ko waa hôpital bi yëpp ak sunu kilifa yi nga xamante ni ñoom lañu àndal ci hôpital bi directeur hôpital Ndamatou ñu jiital ko ci muy docteur Mamadou Moustapha Souran ak ñi nga xamante ne ñoom la àndal liggéey bi tey manam ñaa teewal ko fi ñi nga xamante ne ñooy kilifa yi ak saf ak ñëpp ñi nga xamante ne ñooy kilifa si service yëpp taxaw nañ teew nañ fekkee nañ jotaay bi tey kon tey jii mbégte la si ñun tey jii si bisu koor bu tedd bi si fukki fan yu mujj yi fondation Soxna baali Mbacke mu yëkkati ko premier jéego bi nga xamante ne moom la njëkk a def mu ñëw jagleel ko hôpital Ndaamaatu kon lu loolu ñun cër la si ñun cër boo xamante ne ñun mosoon nañ ko ko jox ndax bañu démarré bañu ba ñu dooree suñu daayira tuddee ko soxna jaara moom lañu xalaat moo nekkoon suñu présidente moo nekk suñu présidente d'honneur kon tey moom delloowaat nañu cër boobu ba tax na fondation bi ñu ngi ñaan yàlla fépp fu mu bëgg mu egg fa yàlla na fi am lu kawe njortam te jàpp nañu tamit lii dafa ñëw rek fondation bi tur la mais jëf ji mi ngi ko daan def démb tey soogaa ñëw te kenn ku ne xamoon na ni daan na séddale ay ñam daan na séddale ay ay ay dund mosu see jóg fépp fu nit jaaxlee tamit daan na ko saafara kon tey fondation bi ñu ngi ñaan yàlla kattanal fondation bi ba lépp lu mu yéene si liggéey Serigne Touba mu mën koo eggale kon ñun defuñu lu dul di leen jaajëfal tey ji bu wootee tey ji ni man damay ñëw tàmbale hôpital Ndamaatu ñëw jox jox ndogu ñi nga xamante ne ñooy malade yi ñu ànd ak malade ak personnel bi fi nekk du ñu def lu dul jaajëfal ko xam ne ñëw na ci këram ñu ngi koy dalal ñu ngi ànd ak moom liggéey bi dafa fas yéene ànd ak moom liggéey fondation bi yëpp di koy jotali bu baax nag nuyoo docteur Mamadou Moustapha Souran ndax moom moo bëggoon a teewal boppam waaye nag ma daayira bi yëpp ñu ngi nii kenn ku ne xam na ne bu guddee rek ndogu ñëpp seen kër la ñu bëgg a ndogoo waaye soxna Baali jaral nañu xaar fii ba minuit. nii rek la ko fondation soxna Baali fas yéene taxawoo fii ci dëkk bu sell bi di Touba muy bépp bërëb boo xam ne war nañ faa dem jëf taxaw ñi fa nekk ñu jëf ko ci jëf woo xam ne jëfu sell lay doon.